xar am na fi si daral bi mais xar daan na ëpp nii parce que daral bi boo calculer Elton ñëw ba semtee jaar ba si daral bi fii dem ba ci euh, boulevard euh, Alwaar bi foofu yëpp da doon fees xar oto sax da doon mën a dugg. xar bi li ma jënd ak seer trop parce que ñun kii soo amut foofu cent quatre-vingt kii soo amee soo amut quatre-vingt-dix mënoo ko am foofu nga paasal ko nga indi ko ba fii si Kanjoor ak a métti benn côté xar manqué na par rapport ak di daan am sàmmkat yi tamit boo xoolee métti na seen côté parce que dund gi dafa gën a cher boo gisee xar yokku bon du ma leen blâmer ñoom boo xoolee li ko waral mooy dund gi yokk na li ñuy jox seen jur yi métti na àll bi tam ni mu daan neexee neexeetul noonu bokk na ci ak di jot a jàll temps yi passé suñu ginnaaw bon dugg na laal na crise économique bi bu baax a baax a baax a baax moo waral tey lii ngay gis ni xar kese fi ne mais doo gis client loolu rek day wane ni que dëkk bi am na fu mu toll te situation yi gëj nañ ko dund yàgg na wax dëgg fa yàlla mun naa ne sax bon c'est une première fois ñu fekkee genre dund bu mel nii ci Sénégal c'est vraiment difficile metti na. yëngu-yëngu dëkk bi moo tax it pël yi mun ñemewuñu yow indi seen alal parce que ñemewuñu quoi am na ñu ñëw as néew mais daan na ëpp nii quoi parce que auto mënu loon dugg ci daral mais xoolal oto da ngay dugg gën a va-et-vient et puis gisoo nit yu bëre euh, xar yi daanaka taay lii bëriwul li mënu satisfaire la population Ziguinchor mën na satisfaire encore wa Guinée Bissau fi la ñuy jëndee waa Cap fi la ñuy côté bi ba tanaf fi la ñuy mais ñoñu ñëpp ak satisfaction bi Ziguinchor mu xari euh xari euh, du doy. yor nañ luñu jëndé mais buñ démé duñ am njëgu xar bobu ay jamono da ngay toog cinq ans ci ginnaaw loo am jënd xar loo am dangay yóbbu sa kër mais ren da ngay yor njëgu xar di nga gis ku yor si cent mille francs mënul jënd xar nga ñëw doo gis looy yóbbu c'est vraiment difficile bon situation bi métti na métti na ba méttiwaay bi mënoo ko atte randikaar yi yemut am na ku am ñaari at am na ku am at am na ku ma am manki at ko am ñaari at yi kay di ngay jënd ko trois cent lu tuti tuti 300000 di ngay ko def ndax tay suñu xex ñun moy sénégal mën jëm kanam pour mu jëm kanam ñun jeunesse bi ñoo wara a manko bi yalla defee nak jeunesse bi juk nañ manko nañ am nañ bëgg-bëgg mais na état bi dimbalé population bi parce que tay yar xar bo gisé jeune yi rek ñokoy koy def lu waral ñepp dugg ci yarum xar dépenses yi metti na liggéey amul on préfère tay li, ci at bi ben yoon nga koy dakantal. pour mëna yorat sa bop ba at bi fekk ci la mais nañ lepp lo gis tay xar dang koy jël war ko yar def ci liñ ci def nga dem ñu ne la saaku saaku ripaas ñu ngi la koy jaayé presque ay 18000 19000 Dakar kon fi ñaat la fi wara jar à Ziguinchor xam nga yokku nañ lepp lepp ba nga xamni dundu bi day metti dëkkuwaay bi metti tay suñu yaay ñi ngi joy parce que bo yóbbuwee xar lan moy défar xar bi ñun ñi ngi jël naan xar xar xar déjà moy priorité bi mais li ànd ak xar bi yépp dara matul c'est vraiment difficile population sénégalaise bi ñi ngi souffrir état bi nañu dimbali jeunesse bi ñu wàcce am na yenn yoo xam ne ñoom nañ ko jël subventionné ko seen bopp pour mën a dimbali jeunesse bi ñu mën a évoluer da ngay nekk jeune yor famille wala jeune boo xam ne mi ngi yaakaar ci njabootam pour mën am lu muy defar dara sotteetul moo yokk sàcc moo yokk agression. li nga xam ne moom la ñu waroon def mooy ñu suspensionné mooy aliment bu ñuy jënd pour jox ko xar yi parce que loolu mooy waral lii affaire yi cher. parce que bu fekkoon def nañ ci seen loxo bon gars boo xoolee da ngay jënd ay saako douze mille cinq cent tey boo yoree ay coggal nga yor xar yu bëre nar ko nar a jënd presque une tonne wala deux tonnes kooku xaalis bu bëre la saako ngooñ sept mille cinq cent état bi nag xaw ma ne def na si dara waaye daal war nañu gën a mën a góorgóorlu quoi parce que tamit ñàkk góorgóorlu boobu dafa wàññi lu bëre bëre bëre bëre parce que nit ki tamit du jël alalam daf ko ci xar ñëw mu koy wanteer du wanteer du ko mën a wanteer parce que daf ci bëgg dara wala lu moo tax. xaalis doo ñemee jënd parce que bu ñu la waxee nga daw vraiment métti na. autorités yi xanaa ñu dimbale ñu ñu jàppale ñu waaw fii ba suba nañ ñu jàppale ba saa yu ñu paree jaay sécurité bi man depuis suba ba ngoon ba guddi ba ba tous les jours ñu dimbale ñu ci sécurité bi.